hamani hala ay millions yi taalibe ñooy bàyyi ko fu ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ngir ñëw ci dëkk bu sell bii di Touba santale Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul yàlla suñu borom taalibe yi nag bu ñu ñëwee ci dëkk bi dafa laaj ñu taxaw leen bu baax a baax kii di soxna Momy Kébé day taxaw bu baax a baax gan ñi nga xam ne dañuy ñëw ànd ak moom màggal gi waaye taxaw googu du ko yemale rek ci biir këram mbooleem quartier bi nga xam ne ci la nekk day ànd ak ñoom màggal gi jàppale leen ci taxaw gi nga xam ne war nañ ko taxaw seen gan ñi moo tax ci màggalu ren gi jëf ji nga xam ne mi ngi ko daan def at mu jot mu jëm ci séddale ndawal mboolem quartier bi defaat na lu ko gën a kawe ndax paan yi nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool ñeent fukki paan la yoo xam ne benn bu ci ne def nañ ci ndawal gu baax lool ngir bëgg kër gu nekk ci quartier bi ñu dugal fa benn paan soxna moom Momy kebe wan la ne màggal gi mi ngi ko ànd ak yow li nga xam ne nag moom lay jëf ci quartier bi yitteel gum ko yitteel moom moo tax moom moo jóg doxal boppam ñëw xool mboolem paan yi nga xam ne moom lañ waajal ngir jox waa koñ bi ndax defar nañ ko defar gu baax ci noonee lañ dugg ci mbooleem quartier bi kër gu ci nekk dugal kanam ndawal mu nekk jëf joo xam ne nag mboolem waa quartier bi rafetlu nañ ko lool. lu dëkk feek moom boobaak léegi lu fi bàyyam di def lépp fi la nu fekk waaye bi mu ñëwee tamit alhamdulilah rabbil alamin ngi continuer daal la bàyyam doon def ci lu rafet lu baax noo ngi koy sant di ko ñaanal it nag mu gën a bari doole tey tey di ko ñaanal yàlla. non fàttewuñu nag fàttewuñu ndax lii muy def wax dëgg yàlla ku ko gis xam ne fàttewuñu ndax lii dafa rëy. dafa rëy am na fii juróom fukki at ak ñaar ci kër gii waaw nawet fi nekk yëpp waaw lii mu def lu rafet la mi ngi yónnee nag mi ngi jox tuwaat kàlla. tabaski gi nii chaque année daal bu nee salaamaaleykum rek nit ñëppay bëgg sun xale yu tuuti yi dañuy dem ñëw indi xaalis ñu soxna seen ko jox te lépp ci jàppale nu rek. jëf ji nga xam ni soxna Momy Kébé mu ngi koy def ci quartier bi yemul rek ci jamonoy màggal bu dul màggalit ñoom mboolem waa quartier bi seede nañ ne du dañ ci di leen indil ay xéewal. taxawaay bi bu rafet la day def defal koñ bi bépp defal ñëpp di saytu ñëpp te def-def bi amu ci ku muy defal ak muy bàyyi ñëpp la yemal xam ni sëñ Touba ko ko ñor mu di ko def di ko doxal. lii muy def dafa baax ndax soxna moom mi chaque at da koy def même bu dul màggal sax da koy def. jëf gii nag kawe gum kawe ci ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci quartier bile santaat nañ ci bu baax a baax waaye ñaanal soxna mi Kébé ci taxawaayam ak yëg gi nga xam ne di leen koy yëkk ba at mu jot jëf ji da koy gën a yokku ñaan gi ñu ko ñaanal nag seeni xol lañ ko tibbee. daal ñoo ko koy ñaanal rek yal na ko yàlla ak Serigne Touba jàppale li muy def ci bis bii yal na ko ko yàlla fay. li muy def ci bis bii te yàlla rek tax yàlla na ko ko yàlla fay. di ko ñaanal li mu mën ren bu déwee ne mu mën lu ko ëpp wax dëgg yàlla li muy def moom ñu ngi koy ñaanal yàlla fay ko ci wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ci moom vraiment wax dëgg yàlla. ñu dëkk ñun ñu dëkk ak moom ñoo ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal fan bu gudd ko wér lu mu liggéey ren rek bu déwee ne yàlla na mën lu ko ëpp ci yoonu sëñ Touba. ko ñaanal yàlla lépp lu muy def bu ko defee mën ci am lu dul li nga xam ne moom la soxna Momy Kébé séddale ci quartier bi ci màggal gi mu jëm ci ndawal lenn rek la ci li nga xam ne moom lay jëf ci wàllum social ci màggal Touba gi ndax mbooleem ñi nga xam ne ñoom la taxaw ci màggal gi lim bi mënee su koo xam ndax fi nga xam ne fa ay waajuram tegoon seeni tànk moom mi fa la teg tànkam waaye nag nee ñu du ci benn yoon man qad qalam wa katharul alxaanam salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar